woyox ko mu danañ atte bi ziyaadati alif ci dolli alif mata saaxabat saa yu àndeek ak sara ëpp mi aslay ni ci ñaari cosaan soo gisee alif mu nekk ci baat boo xam ni xarafi cosaan yi ëpp na ñaar xamal alif gu ndoolal bu jam sikk sàkk ka daari bin comme aji dóor demal ci masdar ba dar nga fay gis kon baat gi ak raa gi ak baa gi ndo cosaan lañ ñetti cosaan a ngoog nga gis fa alif alif gi ndollal la bu ci am sikk sàkk kon alif saa yu àndeeg lu ëpp ñaari cosaan ndollal wa imaat ak kenu loo fa gis alif ak ayin ak miim ak daal om datun kooku ayin gi miim gi ak daal alif gi ah alif gi ndollal la saa yu lu ëpp ñaari cosaan alif gi ndollal la xam xubla ji ëmb nga fa alif ak ñetti xaraf yi cosaan kon alif gi ndoolal saa yoo gisee alif mu ànd lu ëpp ñaari cosaan bul sikk sàkka alif gi ndoolal la alif daaribun imaadun xob laa yëpp ndoolal la loolu takk-takk la ñaareel takk-takk mooy woo ko mu danañ àtte bi ziyaadatil waaw yi ci dolleeku waaw mata saxabat saxibat saa yu ànd ak yu lu ëpp min aslin si ñaari cosaan waaye nag waaw gi daf ci def yeneen tënk alif daf na la bu àndeek lu ëpp ñaari xaraf yi cosaan ndollal la waaw bu àndeek lu ëpp ñaari xaraf yi cosaan ndollal la waaye si sarta waram te da sa dar te nekkul ca commencement ab baat walam takku nekkul kalimatu abaat ba min baabi sim sim bokk ci bunt sim sim sim sim mooy ñaari xarafi njëkk yi ñoom lañ def mu daaf xam nga loolu lu mel ne waxoon nañ la cosaan la waaye nag waaw ànd ak si lu ëpp ñaari xarafi cosaan waaye boo xoolee ñaari xarafi cosaan moom lañ baam waaw googu dundal la bu dee waaw gi moo commencé baat ba it kon waaw bu commencé baat dundoo la bu dee ànd naag lu ëpp ñaari xarfi cosaan waaye nag ñaari xarfi njëkk yi moom lañ baamu dundoo la bu dundoo ndoo la waaw saa yu ëppeeg lu ëpp ñaar xarfi soo àndeeg lu ëpp ñaari xarfi cosaan te nekkul ci commencement ba nekkul ne ñaari xarfi njëkk moom lañ baamu ndoo la ka mahmoud gis nga fa miim xayim daal yooyu xarfi cosaan la kon waaw gi ndoola la mhm. na mi bu njëkk gi la moom it waawam ndollal la ndax ànd naa ñetti xarafi ci saan te nekkul ci commencement baat ba du ñaari xaraf njëkk yi ak bu yaa jaayef nañ la ndax ànd naag baayaa ayn xam nga waaw gi nekkul ci commencement ba du ñaari xaraf njëkk yi lañ baaxu mhm. mhm. kon ndollal la bi xilaafi sawti sawtin wuteeg lu mel ni sawtu gi fi di yar waaw gi du ndollal lu tax ndax ñaari xaraf rek ñaari xaraf ci saan matu ñett kon waaw ci saan la ak warantal warantal jàngoon nañ ko fi ak njombale ak mbir mu màgg daal buy jombale warantal waaw gi ci commencement baat bi nekk moo tax du ndollal cosaan la ak wax waxaatu xam nga xarafu njëkk bi waaw gi nga xayen gi wax waxatu waaw ak ñaareel googu waaw njëkk gi moom du ndollal ndax ci commencement bi la nekk waaw ak ñaareel gi du ndollal ndax bu njëkk bi lañ baaxu waaw waxatum nag mooy kàddu xaj wala till kon nii nga xamee waaw kañ la nekk ndollal kañ la du nekk ndollal mu ñëw ci yaa ne wa yox mu danañ atte bi bi ziyaadatil yaa yi ci yokkug yaa mata saxibat saa yu ànd ak ak lu ëpp min asleeni si ñaari cosaan yaa su àndeek xam nga waa ak yaa ak alif ak yëpp ñu ci suñu àndeek lu ëpp ñaari cosaan loolu lañ waaye alif wax naa la tënkut ci dara waaw daf cay tënk yaa su àndeek lu ëpp ñaari cosaan moom it ndollal la waaye dañ koy tënk mhm. mooy walam te te sa nekkut ci commencement ba mhm. commencé wut saabiqatan daa ji ak sar lu ëpp min salaasati usuulin si ñetti cosaan waxul na nekkul ci commencement ba rek de nekk ci commencement ba du ko nekk ndoll waaye bu nekkee ci commencement ba nag yeneen xaraf yi am na lu ëpp ñetti xaraf yi cosaan du ndollal dégg kon yaa bu àndeek ñetti xarafi cosaan xamal ne yaa goog ndollal la dina ci commencement ba la nekk waaye nag gannaaw yaa ga la ñëw ëppul ñetti xarafi cosaan bu nekk ci commencement ba te gannaaw yaa ga la ñëw dafa ëpp ñetti xarafi cosaan yaa goog kat cosaan la mm-hmm. xam nga walam mm-hmm. takun nekkul kalimata baat ba min baa bi sim sim di bokk si bunt sim sim mm-hmm. maanaam du ñaari araf njëkk yi lañ lañ lañ yokk mm-hmm. lañ baamu bu dee araf njëkk lañ baamu foofu waaw yaa ñoo si yem du ndollal ka yeddiri bu yeddiri bu li ci commencement bi la bokk waaye ñaata xaraf yi cosaan ñoo si topp baatara abbaa ñetti xaraf bu fekkoon nañ lu ëpp ñetti xaraf yi cosaan ñëw nañ gannaaw yaaga nag te yaagi ci commencement ba la xam ne du bu fian lan yaagi ndollal ndax ànd naag ñetti xarfi cosaan mm-hmm. te baamuñ ak yarma isman tur la firi xeer buy melxati mm-hmm. yaa gi la parce que ànd naag raa miim ayin ñetti xaraf la mm-hmm. bi xilaafi naxaw baytin kooku ñaari xarafi cosaan la ànd rek kon du ndoola la yaa ak yu yu li taayirin picc lay tekk yu yu kooku ñaari araf njëkk moom lañ baamu comme moom buntab sim-sim la mhm. kon yaay duñ ndollal cosaan lañ bayt ñaari araf cosaan la ànd ak mhm. kon yaa gi du ndollal mhm. cosaan la yu yu ñaari araf njëkki lañ baamu kon yaa gi du ndollal cosaan lañ yas taor yaa gi moo nekk ci commencement ba de waaye lu ëpp ñetti xaraf yi cosaan dafa ñëw mhm. yestanor gis nga waaw yaay mooy ndolal mhm. bi zirati fan la loolu fan la loolu lañ ko tëgg mhm. kon siin gi cosaan la taa gi cosaan la ayen gi cosaan la raa gi cosaan la yaa gi moo nekk ci commencement bi yaa gi nekk na ci commencement bi ñeenti xaraf yi cosaan topp ci gannaam kon yaa googu du ndolal cosaan la dégg waaw gi mooy ndolal moo tax ñu tëgg ko fan la lool dégg ka on sigi ba dégg nga at faruut kooku ñoo bokk ci saar ismu li duway ba ab daaba lay teg kon jox na la kañ lay waaw di nekk ndollal ak yaa ak alif alif tënkulul la ci daara waaw nag dañ ciy tënk bu mu nekk ca commencement ba mhm. bu nekkee ci commencement ba rek du ak lu mën a xew mhm. waaye bu mu baamu ñaari xaraf njëkk mhm. yaa nag dañ naan la bu mu nekk ca commencement ba eh, la ca topp ëpp ñetti xaraf yokk ci loolu tey buñ baamu ñaari xaraf njëkk foofu mook yàlla ak ah, mook waaw ñoo ko bokk

miim gu njëkk gi ndoolal la baraxaa mm-hmm. miim daal gis nga ko mm-hmm. walam talzam te taqoowut fi de si xàq ci xotteeku mm-hmm. bu fekkee boo xottee baat bi miim gi du ñëw waaye kon yokkaat na ci moom dana tënk ci miim miim bu fekkee ànd naa ñetti xarafi cosaan waaye noo xottee baat bi miim gi dana ñëw xamal ne miin googu cosaan la du ndoolal waaye ah, bu dee boo xottee baat bu mim bu wadd te la ma ànd ëpp na ñetti araf yi ci ëpp na saan mën na ñett mim mm. googu ndolol mm. ka mahmoud xotti ko léegi xaamidun dagg nga mim nga mm. masjid waxal sajada dagg nga mim dagg nga mim nga mm-hmm. kon miim yi yëpp ànd lu mat ñetti araf yi ci saan te boo xottee baat bu ñu dagg mm-hmm. kon mim ngi bul sikki sàkk ndolol ak miftaax waxal fataxa dagg nga miim ka miim saa yu àndeeg lu mat ñetti xarafi ci saan te boo xottee baat ba miim nga dagg miim googu ndolal bi xilaafi nax wi mahdin uuteeg lu mel ni mahd mahd lu ko tere nekk ndolal ñaari xaraf la ànd ak ak merizun bi kasar teeni ñaari kasara benn maa nekk seen diggante sukkoon ismun tur la li ma laana ñeel la nooy mën suufi ci karaw karaw gu nooy mooy miris ah pourtant mim gi ànd naag ñetti xarfi cosaan waaye cosaan la lu tax parce que boo xottee baat bi du dagg mim gi day ñëw fay noom na ko ñoom xaaloo wax nañ saw bu ñu yëre mu marizun duñ nooyal ah gis nga ñëwaat na de mu marizun daggoo mim gi loolu moo tax ñu ne mim gi cosaan la mhm. faas ba tuwaa saxal nañ mim nga fee ci xàq ci xotteeku ga wasadaloo ñu tegtaloo bi zalika si saxal gañ ko saxal ala asaalata ne ci sàll taa ngi xam nga ko dañuy jàpp ji nag xilaaful wutee li sibowee ñeel sibowee alqaalim wax ne bi ziyaadata mim gi ndolol la ba léegi sim sibowee ne déedéet ba léegi ndolol kon moom di ci sartaal mu sax ca cosaan ak ci xotteeku maanaam boo xottee baat boo sarfoo baat bu daal kon li gën a wér miim bu ànd ak ñetti cosaan hmm. te boo soppee baat ba sarfu ko min nga wadd min mm. googuñ ndollal la mm. bu dee boo soppee baat ba min nguru du wadd di ànd naa ñetti ci santu ndoll mm. bu ànd lu manqué ñetti xarfu ci santu ndollal ci sant mu ñëw ci Hamza ne woo yox kama danañ atte bi yaadati Hamza ti mm-hmm. ci dollik Hamza musaddaratun bu nekkee ci commencement fa mata saxibat saa yu àndee ak saroof mi aslani si ñaari cosaan sa bu nekkee ci commencement baatal la wax xam nga waxoon na ko fële ci yi nga xam ne toujours dafay nekk istiqaaq wala lu ko ëpp wala am sa su ànd ak ñetti xaraf saa yu waxee bu ànd ak lu ëpp ñaari xaraf ci saa nag muy bu ànd ak ñett jëm kaw am bu ànd ak ñetti xaraf te nekk ci commencement ba ndoolal bu ci am dégg mm-hmm. wala li ëpp ndollal lay doon ba mm-hmm. mu taaxeet wala mu mujj mm-hmm. am ga nekk ci mujj ga bi charte an tusbaqa ci sartaab ñu jiital ko bi alifin ci alif masbuqatin buñ jiital bi ak sara ci lu ëpp mais asani si ñaari sa am sa bu nekkee ca mujj ga waaye alif jiitu ko tam ànd ak ñetti xarafi cosaan xamal ne xam sa googu ndoolal la kon xam sa googu ci mujj ga waaye afa am sa googu alif moo stop alif nga andi te baat boobu am na ñetti xarafi cosaan am sa googu ndoolal la am sa bu nekkee ci commencement ba nag boo xool si dara boo amee ñetti xarafi cosaan rek am sa gi ndoolal la xam nga mhm. kon am sa ci ñaari anam yi la mooy mu nekk ci commencement ba ànd ak ñetti xarfi cosaan wa mutaaxiratan mu nekk ci mujj ga bi sharti an tusbaqa satraab ñu jiital ko bi alifin ci alif masbuqa bi ñu jiital alif jiitu ko daal bi ak sara mu ëpp alif googu la ko jiitu nag ëpp na mais as ñaar ci saan ka ahfaza du xaagi ak faagi ak zaagi xarfi cosaan lañ xafisa kon am sa gi bul ci kisaako ndoor la lu tax ndax dafa nekk ci commencement ba ñettaari fi cosaan jiitu ko mhm. ah parce que feexlu la feexlan ak afdal li gën ismu tur la mushtaq buñ xottee mhm. waaye alif gi ndool la lan tax ndax dafa jiitu ñetti eh, ñetti xarafi cosaan dañoo ñëw gannaaw mhm. dafa jiitu ñetti xarafi cosaan wa isba gi fii baaraam bu bul sikk sàkk ismun tur la waaye ndollal la jaamidan jaamit la loolu waxoon na na ko ci ne la eh, ci eh, mandargaay ziyaada isba alif gi ndool la ndool la ndax dafa jiitu ñetti xarafi ci saan ñetti xarafi ci saan yooyu ñoo gannaaw mm-hmm. ismu jaamit la moom aflus la def wala aflus ay xaalis kapp mm-hmm. koppar mm-hmm. alif gi ndool la ndax faa ak laam gi ak siin gi xarafi saan la kooku jamu la jamu falsun <coughs> hamza gu nekk ci mujj ga nag alif jiitu hamza ga alif googu ñetti ci cosaan jiitu ko mooy comme xamra aji xonq saxra àll hamza googu nga gis xamra u u googu ak saxra u u googu loolu la ndax alif ren jiitu te la jiitu alif ga ñetti xarifu cosaan la mooy xaa ak miim ak ra alif gi tamit son doolal la moom dégg mm-hmm. kon noonu ngay xamee hamza gu nekk ndollal nuun kañ lay nekk ndoolal mu ne boo yox ko mu danañ àtte bi ziyaada ci nuun si yokk ak nuun mu ne tarifatan bu nekkee ci mujj ga waaye nag dafay niroog hamza foofu maanaam ci saa taab alif jiitu ko alif googu lu ëpp ñaari xaraf yu san jiitu comme niñ ko waxee ci nuun ga in kaan dam nekk na moom nuun ga mas boo xatan di luñ jiital bi alif yiñ ci alif mas boo xatan alif guñ jiital bi ak sere ci lu ëpp mais aslan si ñaari xaraf ka sakraan gi firi aji mandi nun gi ndollal la ndax alifa ko jiit alif gi siin kaafra jiit nañ ko te yooyu xarafi ci sànd xat baan aji mer bul sikk sàkk nun gi ndollal la alifa ko jiitu te alif googu xayn ak boot ak baa jiit nañ ko te yooyu ci sànd wa mutawassitin aji digg doomu nun gu digg doomu bayna arbaati si diggante ñeent xaraf mooy yi njàngoon ci gannaaw waaye yooyu dañ ko tënkoon rek nun gu nekk ci digg ba waaye si diggante ñeenti xaraf la nekk in kaana dama nekk na saakiran daa sukkoon moom nun gi comme ni ñu ko waxoon si gannaaw xeeram mhm. mu daam fati nekkul mu daaf kooku ndolla la comme xadan far dégg nga turu mhm. doj euh, euh, nu mu tudd sax euh, dégg nga mhm. yaakaar naa xadan far jàngoon nañ ko ci gannaaw danañ firi gaynde firi lu rëy tamit jànguñ ko woon yaakaar waaye ah tëgg bu mel noonu jàngoon nañ ko. saran bas. ak xasan sar. boo xoolee noonu ba ci digg ba la nekk. ñeent taxaratu ko seq ñaari njëkk yi ñaari mucc mu sukkoon te nekkul ñaari nuun jël benn bi sax ko ci benn bi. bul sikki sàkk nun googu ndoolal la ak xaran fal xorom poole nun googu ndoolal la aw kaa war mu nekk min baabi infiali in faala in fiala moom in faala foo ko fekk nun ngi ndolal la comme in talaxa ak mun talixun yo woo jàng sal danga aw ba daal wala mu commencé mu daare woon mm-hmm. nun ko commencé ci mu daare woon ndolal la mu daare boo gis nun ngi nun commencé ko nun ngi ndolal la wala alif alif gi ndolal la loolu mooy xaraf yu tekki maanaa rek loolu jàngoon rek mm-hmm. kon wax na la nun fan lay nekkee ndolal mm-hmm. boo gisit nuuy mel nii rek neen ndolal la taa fañ lay nekkee ndoolal mu ne wuyu wax ko ma danañ àtte bi ziyaadati taa ci yokk taa fi baabi tafaul tafaul tafaal la daal tafaal la tafaal lul la waroon doon tafaal la la foo ko fekk taa gi ndoola la ak tafaul comme taawun dimbalante taawuna taawunan yooyu ndoola la ak ka iqtiraab comme jege mhm. kooku ndoola la الاستفعال كم استغراب الاستغفار تمران كلو استغفار ما يجي يقول يون دولا وهم الموضوع وهم يبرب على زي ما يحكم مثلا ياتي فيه بزيادة السين تي يوكوكسين استفعال تم فوق فكرة كم انا سين دن دولا او كان الامر من اتاو تاغ في تفعيل او تفعلون تكريم تدحرج مو تفعلون تكرر ruum nag mooy tafaaw hmm? yooyu yëpp taagi ndoola aw kaan wala mu nekk moom taagali tanis pour jigéenal taaw tanis goo gis ndoola la ka qaa'imatun taagi ndoola la aw badaar mu daara wala taagi commencé mu daara kooku ndoola la wa tusaab danañ yokk taaw taa nekkul xiyaas yi yii ma la wax ne xiyaas yi la bunt yi la jàngal ci ginnaaw xam jaaxal waaye nag taa gu fi nax fi malakuut mulku rek la dañ ci yokk waaw taa taa googu ñu ci yokk nag kooku samaa yi la dafay tekki nag léegi nguur gu nëbb jabaruut taa la waaye samaa yi la rahabuut si loo ragal lool ankabuut ab rab la taa yooyu kon tëggin yu mel ni ndoolal la waaye taa gi nag samaa yokk a siinu siin samaan fii naxwi xudmuus bi zinati usfur mooy rek peese usfur lii xaq ngir yégee ko bii ci ma fóot bu defee siin la waaye nag sama yi la wa ziyaadatal xaa ak wa laam ak laam laam xalilatun lu néew la xaa hmm. ak laam li mu nekk ziyaada bëriwul hmm. wa masalu misaal nañ lil xaayi ñil xaa bi qawlim ahraaq ci araaq haa googu ndoola la xam nga dagg na fii mm-hmm. dagg gi moola la waral ne ndoola la wa bi ummahaat fii jamee ummin ci yaay mm-hmm. xam nga ba nga xo ba eh, la da ngaa dagg xaaga mm-hmm. kon xaagi ndoola la ci jamu ba wa man masalal li xaay ku misaal xaa bi xaay sakti ci xaaw sakt xaa goo xam ne noppee ko tax a jug rudda ñu tontu ko xala ci moom bi kaw ne ci nekkam kalimatan mustaqilatan di baat bu beru xaaw saktu baat la boo xam ni noonu lañ koy kiiwee comme xaaw sa wala nu tudd sax xi xam nga waxaa yëqii la xi boo ci taxaw naan xi ñu ne ñu ne xaaju ndool la parce que baat bi noonu la meloo moom foo fekk xi rek noonu ngay wax waaw ndool la rek <laughs> ndax bokku ci baat bi daal waaye lim takkoog baat boobu kese moo tax ma ne du loola kalimatun baat la musaqilatun bu beru wa masalu misaal lañ li laam laam fan lay nekkee ndoolal bi taysal tays la jógee tays mooy firi lu bëri ak zaydal zaydu ak abdal ah wala zandal zandu nga yokk wala aslu ci sànni mooy taysun wowal alkasir mooy lu bëri ak zand doju bey ak abd laamin ci yokkoon laamu ndolal la moom masala ku misaal laxaa ñeel laam bi laami zalika ak tilka mu ne loolu dañ la delloo ndax mu it baat bi foo ko fekk dafay ànd ak laam ah maanaam kalima mustaqila la du kalima buñ xottee ci leneen kalima mustaqila la waaw ba tey laam gi ndolal la rek laam gi lil bon rek la kii kon lil bon di la la rek Hmm? jëlee moo baat bi ñooy taxaw du ci sant ci baat bi ndax ismu isaaraam nooy kee nee gis ne laam amu ko mu ne rudda dañ ko delloo xale yaa ci moom xale yi ci waajur ne ko laam googu duñ ko misaalee ci ndollo bi raddi xaayu sakti ci delloo buñ ko delloo ci xaaw sakt xaaw ak laamu zaalika daal dafa taxoog baat ba comme que dañoo taxoog baat ba nag loolu du ndollo su ko defee jox na la misaal ci takk-takk yi ngay xamee baat bi ndollo la war a du دولار إن أريد الإسلام ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته